asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonantam bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare Eh, di wax ne yaa xayra day fi atta bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila xadadi mbokk yi tey jii di yamoo ko àllarba ñu doon ko séentu weer wi nga xam ne moo di weeru koor wi nga xam ne moo di 2018 ñu séntu ko fii ci jumaa jumaay Touba ci ndigalu xalifa général kullu murit bi nga ko defee Abdou Diop imam mi nga xam ne moo di séntu weer wi ak Serigne Modou Mamoun Euh, jot nañ ndigal ci ñoom ñu ne weer yu feeñ na kon ngeen ànd ci nag fas yéene xam ne suba ci alxames ji mooy doon benn fanu euh, Ramadan ñu fas yéene koo woor yàlla nañu ci yàlla dugal ci jàmm ñu woore ko ni nga xam ne ni la ko sunu borom diglee ñu defe ko ni nga xam ne ni la ko Serigne Touba daan defe rawatina fii ci dëkk bi ak mboolem fu ab jullit nekk wala taalibe bi di fa déglu mooy yëg ne weer wi nga xam ne moo di weeru koor wi feeñ na suba ci alxames ji mooy tolloog benn fanu ramadan ñu fas yéene koo woor ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko wasalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibi yi eh, ni ñu ko baaxoo defee ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér waaye mu nekkoon liggéey boo xam ne mi ngi tàmbali woon ci Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacké yàlla yàlla doole ay ngërëmam jaar ci Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ba agsi ci Serigne Sidi Mokhtar ba ñëw ci Serigne Mouhamadou Mountakha euh, commission bi nga xam ne Serigne Modou Mamoun Bousso la Serigne Saliou tànnoon def ko mu nekk ci bopp commission bi waaye mu feggoon ko ak ay kilifa di Serigne Ahmad Rafahi moom Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbacké waaye nag ak Serigne Khalil Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Mourtada ak bokk yi nga xam ne Serigne Abdou Diop mi nga xam ne moo yore kaddu commission bi ak Serigne Bachirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khoudous mi nga xam ne moo nekk Darou Mouhty ak bokk yi nga xam ne ñoom nañ baaxoo de àndal fii ci jumaa ji saa yu weer amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñu àndandoo eh, wax ko ci rajo jumaa ji wax na sëriñ bi nee na nañ maase séentu weer wi te ku ca xam lu wér nga ñëw yëgle ko bu ñu noppee danañ ñëw fii ci bunt sowu bi jàkkaarloog tëli alaaji Babacar Kebe Njugo ñu gën koo miin léegi ci tura jannatul mawa suñu ko séentoo ba waxtu jot danañ jokkoo ak kër sëriñ ba suñu jokkoo ci sëriñ bi nag ndigal luñ fi bàyyikoo sëriñ Abdou Diop imam dana ko jottali kon ñun ñëpp dañuy maase déglu sëriñ Abdou Diop imam kaddu yi nga xam ne moo bàyyi ko ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa jëm ci bokki jullit yi ak bokki taalibe yëpp kon sëriñ Abdou bisimilah. moo di waxtu woo xamee ne ñaar fukki fan juróom-ñeent am na ci weer wu ne sëñ bi danoonu yabal ñu dikk ci jumaa ji yéene fi ngir ñu séntu weer wi bu ko defee danañ toog ci soowu jumaa ji nuy di ko séntu ak di taatam xibaar yi loolu nag bi ñu ko defee bi ñu génnee nun ñëpp jam jandoo weer wi bayit xibaar yi xibaar yi bari na lool yu wane ne weer feeñ na fekk na noonu jàndloog moom waaye nag bañ defee noonu jokkoo nañoo kër sëñ Muntaxa ba loola di fa jëlee ndigal ndigal loo xam ne da koo wékkaatoon ci noonu waaye nag moom ginnaaw mooy kilifa gi moo war a joxe ndigal di rek ñu ñu ñu yëgal ko ko bañ ko ko yëgalee mu wax na ne kon nañ jottali ne weer wi feeñ na nga xam ne suba ci alxames ji mooy benn fan ci ramadan na ko ñëpp xam xam ne ci fii ci Touba daal ñëpp mbooloo mi gis nañ weer wi kon suba ci alxames ji mooy benn fanu ramadan na ko ñëpp xam kon nag nuy ñaan rek yàlla dimbali nu ci weer bi ban ban koo wooree nin ko nin nan ko war a woore te fa liñ ci fàggul lépp muy jaamu yàlla gi ñuy yokk lépp nu yàlla dimbali nu ba bu weer wi deeyet nu mën koo jàllale wala yokk ko nu jàppee ne weeru ramadaan wi weer la woo xam ne dañ ci tàggat suñu bopp ngir ci jaamu yàlla bu ko defee nag ndax weer bi bu terew da nga gis nit ñi jëndi kaamil ak yendu ci jàkk yeeg di naafila ak jàng ko def lépp loolee nag bu weer amu bu weer wi tërwut it war nañu waaye nag day kon ndimbal la doon ci noonu ba danañ ko tàmm ba bu weer wi de loolee nu yokk nu jàllale ko to bañ koo yemale ci weer wu dee wi rek yem ci asalaamaaleykum